ni don mu kan din ya ba ta sabo ne ya ba ya ma nan la ni no fight boy yes yes people want to be fight taw bi taw yes luy am mooy am yes luy am mooy am you know fii dara am fii de yes su fight amee ñun ñu fight rek yes luy am mu am loolu moo fa nekk de yes fii loolu amul dama ñëw de people will fight yes. waa Fassab waa Fassab dañ ko war a génne kii ku ñu ko andee am na kii dañ ko war a génne yes ah. ah bro ñun moom fii moom kay ñun dañu mën a give up de. because fii every time every time ñu ngi problème fii ak ñii. every time ñu ngi am problème fii ak ñii ñoo nekk suñu caama pour lan waaye because of la ñu ñëpp Gambians lañ luy am mooy am fi rek yes ñu ñëpp ay Gambians lañ non fii amul fii amul na le yow doo mooy jéego on foreign na nga ñëw def la neex nga dem sa yoon loolu du mun a possible yes fii ndel dañoo faala jële loolu luy am moom mooy am fii suñu dëkk la fii non fii kenn moomu ñu ko moom loolu luy am mooy am yes every day every day problem since kañ yes. Grand Liam dara moo dara fii kenn mu teg ñaar yoon ku nekk da ngaa dégg